جزا ومنا دارك ولاك جزاك يا قل إبراهيم مولاك خير الجزا ومنا دارك ولاك فهلم بأنك إندي سوردا أبدا وساكربك في دنيا وأخراك فدم على الشدق والإخلاص مجتهدا fi sirri wal jëri kay tan mu ma sa yaaka yow mën na don kullu unnaasi bi imaamihim yaakaar ju dul tas da ngay ku yaakaaru seexul xaddim lañ fi yaakaar moo fi yaakaaru yaakaar ju dul tas da ngay ku yaakaaru borom Tuubaa lan fi yaakaar moo fi yaakaaru wa yow ma bis nu naa yow mal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ ne ci duniyaa kenn du muxtaaru yaakaar ju dul tas dangay yaakaar ku yaakaaru maami sëriñ Mbàkke Madina fi yaakaaru wa yow ma bis nu naa yow mal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ na ci duniyaa kenn du muxtaaro moom képp mooy ki si lislaam ci ji jamono notal na lislaam ña doon bañ moo di xëhëru nun ñëpp sant nu war ngir juddu giñ ci juddu maam yaag suñuy baay dañoo fekkoon ñu yaakaaru deret la tuurul dammul nit alkewul du mbiram xëlimaam ga moo di kënoom moo dàq fu jaaro tuurul deret dammul nit alkawul du mbiram kënoom nga mooy moo dàq fu jaaro aarifiya xam nañ ne doo seen nawle feeg fa nu jëm yomal xiyaam bañ la séenee ñëpp a farwaaru waykat ya daa woy nëbi say waya tax ñu wedam bisub keroog say bayit ñooy jolli takkaraaru aljanna say xësidaa fay mbégte moom la jigéen ñada jaloo di sikkar bul weddi bàkkaaru keroog larilwaan tijjul seex bamba aljana ya maliku tëj mboole seen wuntam ya diinaaro lam wax la kenn mus la wax lam jëf la kenn jëful lam wax la kenn mus la wax lam jëf la kenn jëful kon moo yeyoo am lu deeful am faja lislaam ji moo ko fi yeesal ñépp a ngi julli tey delloo ko njukkal a war ngir moo di jàmbaaro al yawma akmaltu lakum diine yow la waxal ngir yaa fi feddali diiney léegi xaraaru nasiir nga boole xaddiir bur yàlla moo la ko may ama noon yi xam nañ yaa di xëhëru Uhud Yamaamata xàndax xaybar ak bëdërin seen payga yow lan ko jox ngay fay ku jàmbaaru sunu njaboot ak nun ñëpp ak waajur ya ak lu naam def nañ ko addiya ngir yéen rek a jàmbaaru billaahi wallaahi law laa sàkka seexu ndagam xamtel fu nuy jëm keroog ngir mbir yu doy waaro alhamdulilahi rabbil alamina ndaxam kuñ woo ci moom bis ba féexal am nga lan waaru mboolem ku tubaab bi wetti ngaw ñaq nag moom nag muroo foog tubaab bii fët ku mbër maa ngi sëñ bambakat sëñ bambakat sëñ bambakat dafa songoog noonu yàlla yi ab diir nag bu yàgg te juumul mbër mu mag maa ngi maa yomb yomb la dem am ndam lu sell di kaat lambar na yomb la dem am ndam lu sell di kaat wiir wiir yomb la dem am ndam lu sell di kaat kon def leen ko muy ilimaan ni jaam ñi njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaali bokkam du seen mappandoo nii leen ko maam yaa ngi ku dem ba daw me dammoo deewoo rafoo taddawoo yow sun nga ñépp salaan ngeen ron gu ma gaa ngi <laughs> jë jërë bisimilah jërëjëf jërëjëf sëñ Alaaji Seck ñaa ngi mi am na solo lool jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla wéral baat bi kon sëriñ Seex Mbay bisimilah man ngaa jege si bisimilah sëñ bi nee na nga wax borom góor bisimilah andil ma daaji ma bindu silëf ci làkku wolof ci sang bopp sang nang ma sam ba sangaate andil ma ma bindu silëf ci làkku walaaf ci sang boob sang nang ma sam géeju ngëneel la di dàggay xéewalu ña ko gis te aar nañam jamonoon teel déglu maati jirim yi ak baayo yeeg miskiin yi ñépp la fat lañuy yendu moo ti ñu ban ñaati te ba waxoo daara seetantal ko seetlu ba tey yoo foo na bi nasri jàngal leen ni aayaati toppaa konub ay magam ak waajuram di yërëm rakkam ya wuuf ñamu yor ci yaatu ak yeete sëriñ sépp ak ñañu bot bennoo gërëm ko ba fab tampe yi ngërëm jox ko muy bànkub njariñ yaati maakaana fasan xaliisan pal bi raxmatihi lil xalxilaana wa miqsaarul fuyoodaati mooy saalikun xëy di maj suuban na bitti ba mel la biir ba mel gore gis gor lii meloom waati yéesul ëppul yéexulit diisul bewul waruwul yàkkamtiwul laawul du xepp ñuy teete jayeeg jayeeg wutu tur doo gis mu gaar ko ci mbir laajal ma ñuy suubi ñooy xam bii galen xaati du tëgg bàkkaar du tulliw ay gawar bu mu yar du daanu ciw fas du mam mu fas du lu péeti imam la di su ko sabal xol bayaana taset filan la may nii la gottee gaañe daarooti kum jiite ak julli muy kuy dund mbaate ku dee buur yàlla jéggal ko laajal gaay a gis tuuti yeesal na daaru minan ak poroxaan dundalit warab ya baayam amoon du wor du boddaate yeesal na daaru minan ak poroxaan dundalit warab ya baayam amoon du wor du boddaate walam yëjji min sawi iflaaxi wal bulaxaa bi saccoe wa sihri min usril sa jiyaati demal ba tiib daaru tanzil ak mbul ak yani mel attaque ANC du xam lam naal du kaate ku dégg lii war a xam bi sang xam-xamu daan ngir portale catalogue day junj mbir tuuti ma far biral ko ci sant ak bàkk moo di danay sëriñ Basiiru turam waaye muntaxaa saati ma far biral ko ci sant ak bàkk moo di donoy sëriñ Basiiru turum waay muntaxaa saati na yàlla dolli ko wér ak jàmm ak gudd fan te def nu soppeem bu dul bii jooka jàddaate yéen gaa yi mbul bàkku leen am ngeen ku kenn amul yéen gaa mbul bàkku leen am ngeen ku kenn amul seen bàkk waa ngi na ngeen may ñaanali tuuti wut leen a wut ngërëmam ngir kii ko am ngërëmam am ngërëmal ñañu daa digg ak ñañuy saati abo mu sikk ma di blaaxoy tëb mu indi askat di am tey dundi lab yaati mooy sant bay santu baay ak doom te li mu am mooy sant bay santu baay ak mu am muccëg mosak ndolle nag njéggal wir ak gudd fan jàmm ak jag ak yegg tawféex ak ndimbaliyaati dërëm ak ngërëm xol bu sedd ak barke yàlla na nu dal dal képp rek ku fi teew te jii mu jëf tuuti maam na tey Mbàkke liñ lay dagaan si mooy jariñu yaay yoon wi barab baa ngi nii ku tàbbi rek jariñu suñ jëf yi nu mën a mel nun ñëpp suñ yéene mooy bëgg a baax géej nag póotit ak ndox mu bon du tee ku duy jariñu lii lépp ak cant la gunti ba biir sunu xol ku yor tawat nag nëbbu ko docteur doo jariñu suñ ragg yeeg wopp yeeg mébét yëpp yaa na ci doy defal na lool ku nu gis tey ak ëllëg jariñu kon ibbil tijjil mbàkke baddil ubbil àllil sax afalal bunti njëriñ yëpp biir ak bitti nuy jariñu yàlla na yàlla guddal saw fan tamay la nga wér te lépp ànd ngërëm ak barke ak jariñu mbàkke yaram wi na wér safan wi diw doj nga yeex a dem ba mujj fi mbég muy ñëw nga teewe ko taawu ko bi mat rasulillahi barkeb seen mbàkke madina jërëjëf